asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi Senfootball TV leen bu baax baax ziar leen tey dama leen andi leen crack bu ñuy wax Bakary Sow ñu générique bi te fa nga bëgg la warul tiit du ragal la fekk dalay daan mbokku internet yi dem leen ni continuer di leen nii bu baax a baax di gis seen i commentaire à chaque fois aussi tamit lu xamante ne wax naa leen que da ngeen may interpeller pour ma ñëw si euh, booy bi may paree wax nii nag euh, dama ko yàgg xam on peut dire que depuis daaw maa ngi koy bu baax a baax yàlla dimbali ma ma defal fii euh, rakam vidéo muy Ibrahima Sow Ibrahima Sow nag nekk jour bu xamante ne siw na àdduna dugal na benn vidéo bu extraordinaire si benn jogante bi ñu doon wax Betis Séville contre Séville muy Ibrahima Sow ñu koy wax sax le nouveau Ibrahima Bis wala le nouveau Lukaku daaw laa defoon ci moom vidéo je me rappelle vidéo bi mos defee y a tellement eu de commentaires euh, ñi naan noonu la wañi Adam jaar na fi dugguñu fii te alors que information bu lèr la ci jot buy wane né bu mu amé 2 ans euh la jógee Sénégal fi dem fofu après aussi tamit bo xolé def sa bénn gëstu bu lèr da nga xamné ne loolu dëgg la yàlla dimbali ma nak ma ma waxtaan ak euh, nijaayam nijaayam bobu may wax nak mo jur Bakary Sow parce que boy bobu talent pur euh, ma def ci mom vidéo daaw la woon def na deux vidéos ci mom defaat la vraie histoire de euh, Ibrahima Sow papa euh, nijaayam ñeu expliquer depuis loolu ma garder contact ñuy waxtaan lu bëree bëri si laa découvrir na tamit doomam c' est un joueur excellent ñu koy wax Bakary Sow récemment nag si chaîne bu bees wax naa si si Ibrahima Sow ma ne la woon nag dinaa ñëw si Bakary Sow parce que un joueur très talentueux dama gis ne Ibrahima Sow sax gën ñu ko talentueux donte nag vidéo bi xam naa ne yéen ñaar ñëpp yéen koy seetaan mais yéen ñaar ñëpp am talent te yéen ñaar ñëpp gis naa ne suñu petite catégorie war ngeen mën a ñëw vu que bëgg ngeen Sénégal lool te Espagne moo ñu topp seen ginnaaw Bakary Sow nag nekk na joueur bu xamante ne comme Ibrahima Sow dafa jaar Malaga mais bu demee Malaga U12 U12 Euh, nekk na fa meilleur buteur meilleur joueur si Espagne te koo xam Espagne ni ñu bëree ay joueur yu technique donc boo nekkee benn sénégalais nekk fa yow nga nekk fa meilleur donc franchement joueur que joueur yi xam nga euh, mën nga bàyyi xel mën nga bàyyi xel tax na sax ay équipe yu mel ni Real Madrid Barcelone Valence atletico de Madrid euh, PSG y a tellement d'équipes yu xam ne da ko soxla Manchester United ñooñu ñëpp dañ ko bëggoon jënd nijaayam euh, bi xamante ne mu ci Mouhamed Sow may wax ak moom lu bëri mu nekk sama benn euh, benn grand bu may jox ay conseils et tout di ñuy waxtaan ci football lu bëri ne bu mu amee euh, proposition yooyu yëpp d'ailleurs sax boo leen gisee yenn taskati xibaar yi relayer nañ boobu moom moo jël choix dem Séville pourquoi Séville nag naa ko si laaj mu ne ma Séville infrastructure yi dañoo mën a former moo tax mu dem Séville bu ne xam nañ ko bu baax baax nekk équipe boo xamante ne Europe moo si ëppale lu mu gagné ay Europa League maanaam UEFA donc pour ñi xamante ne ñu ëppal mu leer seen bopp donc mu jël choix dem foofu déploie na mooy si petite catégorie yi nekk joueur bu xamante day jouer si équipe àndalu bu ñu àndalu mooy tey jii comme euh, waa Tëngéej amoon seen équipe waa Dakar am seen équipe waa Thiès am seen équipe c' est comme ça léegi àndalu nag maanaam waa Séville seen équipe booy dañ ko fa jël moom ak Ibrahima Sow yëpp dañ ko fa jël d'ailleurs moom foofu capitaine la ma koy ma dama koy gis muy dugal ay coup franc attaquant la nag mais day dugal ay kii fran ay pied gauche pied droit day armé joueur bu xamante ne franchement gis naa ne tamit en troisième c'est bon xamal boo nekkee ku xamante ne euh, muy Mouhamed Sow dina dina ko cadre muy papam franchement man dama bëgg gis ko si petit catégorie yu équipe nationale du Sénégal parce que bi ma waxtaanee ak euh, papam xamal na ma carrément muy moom ak ibrahim Sow yëpp waa Espagne guddi ak bëccëg bu ñu sañoon booyoo dañuy Espagne depuis loolu nag seul problème mooy que fédération sénégalaise de football vidéo bi loolu moo tax ma koy def pour que interpeller rek mosoo leen contacter Ibrahima Sow mosoo leen contacter Bakary Sow jot na ngeen contacter leen ñu mën a ñëw si U20 parce que jamono bi booy bi 16 ans la am donc bu amee 16 ans 17 ans 18 ans je pense que war na mën a U20 parce que franchement gis naa ne euh, mën nañu indi un plus value joueurs yi nekk fii ci local bi Darou Salaam euh, génération foot Jamba euh, mooy euh, Oslo Foot ñoom ñëpp bo booy fi nekk am nañu talent macha allah mais boo si boolee boo leen si boolee yeneen jeune talent yi xamante ne ñoo ngi euh, bitim réew am talent boo leen si boole suñu équipe day gën a baax te euh, muy coupe du monde muy coupe d' Afrique U20 yooyu mën nañ ko gagné donc Bakary Sow xam naa damay ñëwaat si beneen vidéo bu xamante parce que man ak moom jot nañu waxtaan sur Instagram mais dama war a jox carrément détail bi ay buyam ay sigam. lépp lu xamante sénégalais yi bëgg nañ ko xam ma defaat beneen vidéo bu xamante ne damay gën a expliquer lépp wax leen euh, ay qualité donc li mu leen mën a wax daal mën na dugal coup franc pied gauche pied droit am na accélération am na dribble technique day jox ay passes décisives am na bu xamante gis naa mu passe euh, Ibrahima Sow parce que ñoom ñaar ñoo nekk si si équipe àndal boobu donc un très bon joueur bu xamante franchement nekk na sax meilleur euh, meilleur buteur cadet foofu ci Espagne seulement essai bi donc un joueur très intéressant dañ koy jox capitaine 10 pour vous dire que c'est un jeune talent bu xamante ne dans l'avenir bëgg naa ko gis si petite catégorie bi te man maa leen ko wax Mohamed incha allah dinaa def beneen vidéo ci moom gën leen wax carrière am jox leen ay estigam wax leen jamono bi si lañ leen nekk donc jot naa si waxtaan ak moom mu ne ma waaw euh, boo xam ne damay déplacé wu euh, dem gis papam ñu waxtaan si moom récemment dem naa fi këram mais dama fa war a defaat këram bu ne interview lay doon donc incha allah xaal leen ko sur seen football TV donc euh, si commentaire nag wax leen seen xalaat ak seen gis-gis di leen jaajëfal di leen wax ba beneen sur seen football TV bye bye.